ko ñëpp ñu daal di fësal ndoxteelu liggéey yi bile lël nag daal di ëmb képp kuy exportateur métal la ñu ci mébét moo di daal di aar secteur bi nga xamante ne nag ay téeméeri téeméeri milliards la ñu ko xayma. te exportation bi dafa amoon ay jafe-jafe yoo xam ne ci at yi yëpp kon war nañ mën a taxawal kuréel goo xam ne lépp luy exportation ñu koy jaarale si ñoom état di ko jaarale si ñoom di wax ak ñoom parce daf loon bëri ku jóg rek dem gisee nguur. waxtaan ak ñoom ci wàllu exportation bi su boobaa mi am ay rëq-rëq yoo xam ne ci wàllu exportation bi bay lor. ci régime bu jàll bi nag daanaka sonn ba loof lañ defoon li ko waral moo di licence yu néew yu ñu leen joxoon ak nguur gu bees gi nag am nañ yaakaar ni dinañ leen gën a taxawu. lu fanweeri nit ak juróom doon liggéey ñaar du ko liggéey loolu moo tax secteur bi bu nekk ci guddi yi ñu toll lépp liy prix lu war a génn réew mi dafa daanu. industrie yi tamit ñu ngi am loo xam ne tamit exportateur yi lañ ko doon jaay mu ngi taxaw parce que ñaari licence waru ko mën a liggéey bu ñu jëlee ferraille bi yépp di ko yóbbu ci industrie yi industrie yi ñoom itam bloqué nañ ndax mënuñoo fay ndax font bi mënuñu koo lakk font bi il faut que ñu génnee ko waaye nag fan yi nag dañ yëglu parce que secteur baa ngi bëgg a yàqu mu ngi bëgg a bloqué mu bëgg nu mu gën a gaawee ministre de commerce bi signé licence yi mu génn ñu mën a gisaat suñu bopp ci secteur bi ndax ferraille yi liggéey rek lañu ak ñi leen di jàppale ñu ne dogu nañ daal di amal liggéey bu mucc ayib